dikkati naa daanaka opposition bi day tey man ngeen bañ a campagne turbine yéen a kaay ne ma kaay ka nga xam ni kay moo nar a jàggar bi Amadou Ba ba biir weex ne ko premier ministre fii doo ko laal doo ko jege si su président bi moom daanaka dégg rek nga ciy am te nga xam ni nag daanaka mooy adversaire am moom Amadou Ba campagne bu jotee opposition bi ma ni leen toog leen amadu Ba am nag adversaire te kii moo ko nar a xañ nguur gi nag yéen a bi dee média bi naan man boo bëggee dégg-dëgg njëg yoo xam ne cher na ba jéggi dayoo lii nag moom ci boppam moom la Amadou Ba war a xeexal ndax fi réew mi mi toll ku xëy jënd daal dina ñi yàlla bu ma leen fi tegaat ndax Sénégal ba muy neex jamono ku jënd am weccet réew mi tollootul foofu turbine naan maan ma ne la campagne bi daal teg leen ko ci njëg yu seer yi rek ndax askan wi loof nan lottu nañ am na ñu njàqare seen réew nu muy doxee ndax mbir yu seer commerçant yi nag ma ne la di def la leen saf ndax góor na maa gi ci boppam moo bàyyi gaa yi tamit def leen saf moom góor na gouvernement goo xam ne moo nu war a sàmm fa yàllaahu protéger ñu suñuy njëg ba kenn koo xam ne góorgóorlu nag fi mu toll ni taqale naa taqale ba buum yu mu mën a jël boole ngir mu taqaloo amatu ko réew mi metti Sénégal doy waar njëg yi cher yoor yoor naan maan ubbi teg l'école gi metti lool l'observateur naan kon bala nga faa yegg facture courant gi moom fi mu ne Sénélec askan wi dañ koo ngembul guuxal ko saa bu nu xëyee di ko ko yàbbil moom papa Mademba bi tey mi ngi andi ay leeral nag ngir wax nag facture courant gi nga xam ne yokk na lan moo ko waral waaye diggante Sénélec client yi daal neexatul seen diggante moo ñagas ñagas goo xam ne maar day taali minutes pour lire l'essentiel naan maan ma ne la du courant gi kese de ndox gi tamit mi ngi yóbbu askan wi jaxaan na ma ñu ne déet waaye ubbi ci waxtu woo xam ne maar day taali réew mi métti na yoor yoor naan njàng meeg njàngale mi de moo gën a wopp nag ci réew mi foofu Sénégal amul jàngalekat yu doy personnel bi moom daanaka yéene gënu amoon ci dem jàngale motivation ba nekkatu fi seen yaakaar moo yankeeku ci lépp loo xam ne ay dige la Sénégal gii ñu ne ma ne la bari ay ndongo yoo xam ne ci mbaar la ñuy jàngee ay établissement di l'école yoo xam ne dafa fees dell ki ndox am l'école yu bari yoo xam ne taabul yu ndongoy toog jàng amatu fa gouvernement gi boole ko ay dige yoo xam ne day nax saay statut des décisionnaires nekk fi yeexaay ci wàllu administration nekk fi daanaka jot kayitu juddu ngir inscrire sa doom mënoo ko am formation diplômante yi yeex ndongo yi bu dee ay tuut tànk la di ay moomin ñoom waajuru ndongo yi fi mu toll nii dañoo calculer ba baaraam deseetuñ ko seen xel yi ma ni la daal di làmbeer xalaatatul ndax njàqare ubbi tey jàng tey ñu waxoon ko ci jamono joo xam ne nag lépp dooroon na laata bi xale yi war a jàngi l'école war a yegg nag ci l'école yoo xam ne daanaka dañ koo politiser le soleil naan kon tey laa lay wax ñaata l'école moo am nag ci réewum Sénégal ak ñaata jàngalekat ak nan leen wasaaree vox populi naan maan boo ca noppee demal ca parrainage ba ndax nag dafa am lu yees yoo xam ne am na ca yakkal ma amatul parrainé kii wëlbati ko yakkal ko ci geneen fiche amul ndax fiche ci boppam léegi dafa ami numéro yéeni kaay bi naan maan démb démb ma ni la ñaari téeméer ak fukk ak juróom daal dina ñu jël ay fiche parrainage mbir mi nag day daal di wéy ndax ba laataa ñuy parrainage wala keneen jàllul ku ne mën ngaa dem jëli say fiche le thème mooy yéen am na ciy candidat xam ne moom dóor marto rek bëgg nañu dajale xaalis bëgg wàllu diplomatie ñu ñoŋ ci bëgg nag duggaat ci chantage ak enrichissement illicite fi mu toll nii ma ne la daanaka ab luuma la ñu nekk ci wàllu élection présidentielle ci réewum Sénégal Walf Quotidien sampub laaj ne am nay candidat yoo xam ne nag par procuration la diggante Amadou Ba mi président Macky Sall yàkkale Alioune Mamadou Dia mi nga xam ne moo ko yàkkale Guy Marius Sagna mi Pastef yàkkale mbaadu ay candidat procuration vox bi di naan maan en tout cas Ousmane Sonko candidature am gi ni ki ëllëg ëttu attekaay bu kawe bi dina ci wax fiche parrainage yi dañ ko koy mujj jébbal fa yàllaahu am déet dana ci wax l'info yéeni kaay naan Cheikh Agibou Soumaré ma nga naan maay candidat askan wi waa grand place naan ma Abdoulaye Sylla bu Ecotrans moom it candidat la demoon na ca usuy roi d'usuy ba daal di koy ñaanal feetu ëmmëbal ba nekk ca usuy mu doonoon fa pare lu toll ci fukk juróom ñaar ciy dëkk dëkkaan daal di ànd candidature am bi buur ba ci boppam daal di koy ñaanal ne ko Abdoulaye Sylla demal Casamance googee vox populi di ma xamal na yekkal nañ leen Mortala Tine préfet bu Ndakaaru léegi moom mooy gouverneur ba président Macky Sall Jean Bertrand Bocandé ma nga xam ni moo jiite woon administration pénitentiaire ba daal dinañ ko fay jëlee daal koy remplacer colonel Abdoulaye Diagne yéeni kaay bi ba tey naan man bu leen fàtte ni am na ñuy caaxaanee fonction président ci réew mi naan man waa parti démocratique sénégalais seen fédération ba nekk ci Italie ña ngay xam bi ci wàllu parrainage bi Sall daanaka moo ko tënk ñi nga xam ne nag ñoo yey nopp maître Abdoulaye Wade fédération bi ne ñoo ñee ñoo moom wax ji te buñ ko jooyantiwul mën naa yàq mbooloo mi te mbooloo ma bu yàqoo ma ni la candidature Karim Meïssa Wade mii mën naa tàbbi géej ndax nag élection bi nga xam ne waroon nañ ca ànd campagnal ko moom Karim mu mën ca jaara jot réew mi day mën na andi jiixi jaaxa waxtu woowu ca diwaanu Kaolack laas yéene kaay naan man Mohamed Nazir Seck jébbal na leen ab hôpital boo xam ne ñeenti téeméeri million la ca Medina Baye fii ak fukki weer ak benn ñu war ko dalloo faa fajo xalif ba rafetlu ko daal di cay defuk ñaan président Macky Sall yi daal di xamle ni mën naa antu xalif ba daal di cay rax dolli daal di xool fa nga xam ne fa l'hôpital ba waree samp daal di ko fay joxañ Mohamed Nazir ñas ne daal di jàppale sama askan daal ci paju geeg leneen moo ko waral turbine yéen kaay naan man kan mooy jàppale waa Mboro diggante ndox ak courant jafe-jafe la ci ñoom waxtu woo waa banque mondiale ñi ngi xamle ni fii ci Afrique sowu jant lu toll ci ñeen fukk ak benn million ci ay doomu aadama daanaka lekk gu amuñu ko